problème bi moy ñom nee sen mam maam moom moomoon fii seen maam ko ak Jili Mbay Jili Mbay jaay ko état du Sénégal xaalis ba ba légui ci lañ jotul xam ñu Jili Mbay ñun dañu jënd HLM té HLM état la pourquoi ñom ñuy ñew diñu di ñu ngeen ñuy sétane mais un arrêt de justice du permis de construire du titre de propriété yoy lañ fi ñew di emmerder nit ñi di ci tabax té on en a assez dinañ ci taxawal suñu bop bu ji autorité yi taxawul mais li ñuy wax dal moy la responsabilité de la SNHLM elle est engagée interpeller nañu le directeur de la SNHLM gisatuñ ko motax ñuy interpellé interpeller le président de la République à ce que mu toute la responsabilité relativement à cette problématique Demba Anta nag dañ ko fi bëggatul gis avertir nañu nag toutes les autorités pajum kanam beroom Mokoy, fajal bopam dem nañu fi ñu war a dem respecté nañu nañu loi ñu ngi koy ci yoon mais les li ci avertir nañ leen ce bandit foncier là Demba Anta bu ngeen ci taxawul dinañ deflante ak ñoom on vous avertit n'ak